waaw ci sorti Talla Sylla yi moom Talla lu nekkul rek lu dul di wane jikkoom ak li nga xam ne moom la nit ñi doon xalaat ci moom doon ko xaar ci moom mooy ku mu àndal su ngeen demee bëcc bi da lay wor wax naa ni Talla Sylla workat pur sang la nit ñi di reetaan mais li événement yi dem yëpp ci kanam wane nañu ni li ma doon wax ci Talla Sylla moo am xam nga mbiru Talla li tax mu doy waar mooy nit ñëpp waxoon nañu Idrissa Seck soo ko falee da lay wor te loolu la loolu moo ci bizarre kon sénégalais yi xamoon nañ Talla la moom workat rek la c'est un traître né bi ci topp mooy li muy jéem xam nañ ni dafa nekk ci mission mooy dañ ko jox mandat mooy déstabiliser Idrissa Seck Thiès xam nga loolu yàgg naa ko wax mais bis bu nekk mu ngi wane ni loolu lañ ko liggéeyloo même dafa jaay Thiès waay Macky Sall ñëpp xam nañ ko Macky Sall daf ko may 4 4 40 millions yéen gis ngeen 4 4 beneen bi dañ ko ñoo ñoo ko luyal kër luyal ko ab pale bu ndaw di ko fayal nee na moom dañ ko koy fayal mais fii ngeen di toog tuuti rek gis ni tabaxal nañ ko kër dina ni dañ ko tabaxal kër may ko kon taala dafa jaay ceesuwaay Macky Sall jaay leen pour mbiru boppam kon liggéeyal askan wi yi muy wax liggéeyal boppam kay la war a wax mais gisuñu ñun lu mu fi liggéey gum boobu léegi tey def na ñetti at xam nga tey ñu ngi nii jóge benn tournée ci département bi ñu inauguré ay poste de ñaata yoon la ñu ànd ci département bi di inauguré wala di tax ay travaux te man de gisaguma bokk lenn ba mu fi ne ñetti at loo xam ne inauguré na ko budget budget milliard et quelque am na ko mais li ci ëpp fayee ko ay salaire bu ay mbokkam ak ay xaritam lan lay def ci conseil départemental même benn tasseuse yi ma indi woon ci ma ci mairie ba ci mairie ba gis ngeen benn tasseuse yi ma indi woon di pour ñun kii mbalit mi mu nga fa nee na amul carburant bu mu ci def te benn nit bu muy fay rek mën na jënd 1000 litres carburant kon ñun defe naa ni taala nit ñi lay jéem a nax mais ñun mënuñu nax ndax ñun xam nañ ko démb xam ko tey beneen bi ci des euh, day sonal boppam ndax ñun yàlla dafa dogal Idriss mille 2002 la nekk maire Thiès ba léegi ba 2014 régime bu fi jaar audité nañu Abdoulaye Wade audité nañu ñaari yoon Macky Sall bi mu bërki démb la rapport audit yi génn bu IG est-ce que mas ngeen gis benn rapport audit bu ñëw Thiès daan ni ñu lii yéen yéen a jël dërëm bi yéen jël ñaar dërëm bi wala audité leen nañ la ci li gisagu leen ko bërgi dem ba ci mujj rapport IGE bi bi rapport yi e génnee yéen ñëpp gis ngeen ñii am na sax ñoo xam ni teg nañ leen ci loxo am ñoo xam ne taqal nañ leen lii mais da gisaguñu lenn loo xam ne ñun taqal nañ ñu ko d'ailleurs am na sax ministre Macky Sall bu ni waaw su doon acharnement la contre Khalifa Sall ci Idrissa Seck njëkkee mais moom bañ ko bindee dafa tontu coow li jeex cest que ñun amul lenn rek loo xam ne mën nañu ko reprocher rapport yooyu amul ngeen gis ko ba tax na kon ñun côté boobu ñun suñu xel da ca daal du nag kon Talla Sylla mi nga xam ni mission la nekk mission commandée buñ ko jox pour mu gàkkal Idrissa Seck yàq deram moom moo mun a gàkkal Idrissa Seck wala yàq deram wala ñu mu doon àndal. mais ci législatif waaw xam nga Talla moom wax la lañ ko xamee te wax rek lay def théâtre lañ ko xamee te théâtre rek lay def kon ñun du Talla moo nekk suñu interlocuteur li muy wax defe naa ne boppam lay wax. ndax xam na ni même sur coalition bi amul woon ñun élection président législative lu mu mënti am lu mënti am Thiès yàlla mën nañu suturaal te incha allah dina ko def dinañu gagné élection yi comme nañ ko yàgg gagné ndax waa Thiès nag dañu am yaakaar ci Idriss Seck te yaakaar boobu bis bu ne mu ngi renforcé mooy dañ leen di liggéeyal suñu leen di liggéeyal nag ñoom reconnaissance la ñu am ci Idriss Seck fu élection am ñu votel ko te lii ñuy mujj def tey ñu ngi jóge tournée nii ci département di inaugurer ay poste de santé ba keroog jógee ci inaugurer ay salle de classe te noonu la ñuy continuer ñu ngi ci projet bu mu am solo bu ñuy wax projet de lutte contre l'immigration clandestine suñ partenaire italien bi rek mu ngi ma koy wax léegi ni ma ci Italie li ñu cay def ci xaalis ci projet bu mel noonu kenn xamul nu mu toll donc moom day yóbbaale projet boobu kon ñun li ñuy liggéeyal askanu Sénégal kenn xamul nu mu toll ak waa Thiès waa Thiès ñu remplacer ak ñoo xam ni mënuñu sax dañ fi ñëwee ñett at boobu ba léegi lu gën a ndaw sax mënuñu ko teg ci loxo askan wi daal ni ñoom lañ ko defee dinañ ñu remplacer ak fan la lu tax kon ñun suñu xel dafa dal suñu xel aussi ba mu dalee yàgg na sax ñun li ñu war mooy gën a réorganiser suñu parti gën ko animer gën a continuer liggéeyal askan wi te xam ni fu élection amee seen Thiès Sénégal Idriss Seck la waa Thiès di jox loxo barki bu ci mujj dama recevoir ay retraité ñu ne ma ñun ku ne seet si na leen mais ñoom seen xol mayu leen ñuy xooli keneen di bàyyi Idriss Seck donc ñu ñëw Idriss Seck ma woo ko paas la ñu am pour dire rek simplement de plus en plus les gens ci jeu sax dañuy gis ni ñàkk jàppale Idrissa Seck pour ñoom pour ñoom war seen conscience la ba tax na kon ñun si côté boobu ñun suñu xel daf ci dal te coalition bii ñu lancé au-delà de Thiès dinañ gagné yeneen département sax asama ah, Thiès Thiès moom gagné ko moom wax dëgg yàlla mun naa ne lu yomb ndax liggéeyal nañ askanu Thiès loo xam ni su élection amee ku ñu teg ci balance bi ñu ak moom dañ lay gañ loolu moom la yàlla dogal ndax dañ ko liggéey liggéeyal ko askan wi di continuer dañ leen liggéeyal nag te wi loolu la askan Sall Macky Sall 40 millions yi mu ko jëndale oto bi pour kan la du pour boppam siège bii mu luye daan ni pour askan wi bind ko ci ci kaw loolu du jëmul ci kaw kër gi ñu ko luye kan la jëm ci ci moom xaalis biñ koy jox yéen ñëpp gis ngeen ko régulièrement du jëmul ci moom lan la fi liggéeyal askan wi kon taala ñeneen ñi lay nax mais ñun ñoo nax wante li muy def nii day sonal boppam ndax ci kawam lay dell te defe naa ni li ci kanam raw li bët li ñuy wax rek leneen nit mooy Idrissa Seck borom njaboot la. ñun Idrissa mooy suñu kilifa Idrissa boroom kër la Idrissa mooy kilifa waa Thiès duñu nangu ku ne suñu biir nag ne ci suñu biir kër way jur di ko yàq daram di ko attaqué nañ xam ni loolu mën na am leneen lu mu jur ndax loolu moom mënta wéy waaw loolu moom il faut que ñëpp dégg ko te xam ko yi asalaamaaleykum wa rahmatulah